plateau Aline Sitoé Diatta Voilà le ferry qui assure la navette Dakar-Ziguinchor depuis 2008 et ce un remplacement du Joola après le naufrage tragique inoubliable en septembre 2002. bato bi mooy dox diggante ndakaaru ak Sikicoor li ko du bateau de croisière Aline Sitoé dans la belle et émerveillante vue des mangroves de la Basse Casamance. dans cette immersion au fond de l'océan Atlantique, un voyage de confort accompagné d'une sécurité et d'une sérénité maximale au plaisir des usagers et des travailleurs du navire. def na tey juróom weer ak juróom-ñeenti bi di Aline Sitoé doxul diggante Dakar ak Ziguinchor waaye laaj samp lan moo waral taxawaay bile nga xam ne ñu bëri ñu ngi koy naqarlu rawatina ñu dëkk ci bët saalumu réew mi. le premier juin bi passé ak événement yi xewoon fii dañoo jot benn ndogal benn ndogal bu jógee ci euh, autorité yi ñu ne ñu nañu arrêté ligne bi. le bateau Aline Sitoé Diatta qui n'est pas disponible c'est vrai ça euh, diminue les capacités de de transport entre ces deux zones du Sénégal mais n'oubliez pas qu'il y toujours la route nationale à certaines heures qui est ouverte et euh, aussi euh, euh, le pont de la Sénégambie qui permet d'aller plus vite. Donc ce son des restrictions des restrictions sécuritaires. bi ne ñu reprendre leen il fallait que ñu xool partie bi nga xam ni dex bi lañ koy daw. buoy yi maanaam dafa am foo xam ni fa la navire bi bato bi di jaar parce que dex bi fépp tolloowul xóotaay. te gaal gi dafa am am na 3 mètres 20 yoo xam ni mu ngi ci biir ndox mi mooy mooy tirando. 3 mètres 20 de maanaam 3 mètres 20 yoo xam ne toujours ci ndox mi lay ne ci suufu ndox mi lay ne donc am na yoon bu mu war a jaar pour que mu mën a dem Ziguinchor parce que Ziguinchor moom pooram ci dex la ne donc il fallait que anam ak port ñu def liggéey boo liggéeyu benn liggéey boo xam ne nii moom mooy tax ñu demaat nattaat fu ne fan la moo am ndox ak fan moo amul ndox ak fan la gaal gi war a jaar donc loolu la doon def moom la ñu pare le 31 mars bii passé. fanweeri fan ak benn ci weeru mars liggéey bi yëpp yemb ñu def voyage test boo xam ne mucc na ay bateau Aline Sitoé Diatta fas yéene nag tàmbaliwaat liggéey bi daw diggante Dakar ak Ziguinchor. gaal gi ëllëg lay tàmbali dawaat diggante Dakar ak Sikicoor tey ci altine bi ñu ñëw xool ko liggéey bi fu mu toll ndax lépp yemb na ci biir ak ci biti pare nañu ci wàllu sécurité pare nañ ci wàllu sûreté pare nañ ci wàllu technique mm. ak ci wàllu euh, nautique moo tax ñu ne ah kon jot na ñu reprendre te fi nii ëllëg ci talaata gi ëllëg ci talaata gi bu soobee yàlla bëgg nañu jóge fii Aluncité bi jógee Dakar dem Ziguinchor ci jàmm ak salaam mu commencé rotation yi di dem tey jii ci talaata gi la fas yéene tàmbaliwaat bateau bi dox diggante Ndakaaru ak Sikicoor ci suba si ñu teel ñëw xool gare maritime bi ni ñu toogee. ci bureau yi ñëpp ñu ngi ci wàccaay bi réglage administratif yu mujj yi cay def mooy ticketing bi maanaam jënd ticket. ça va grand mère ça va merci beaucoup. Quand est-ce? Quel jour? Demain. Vous prenez quel type de place? Bon, il y a des fauteuils à 5 000 francs, il y a des cabines à 8 à 12 500 francs. Cabine à 8. on some of that. So, the rendezvous c'est le 16h à 18h. Avant 19h, vous devez être là. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Ziguinchor bu passé foofu la fête de ndax bëtam yu géej waaw ça fait plaisir bu commencé dañu dem nii dem julli ji seeti suñu famille bi mm. yoon bi moom dafa metti par rapport fii mu gën a yomb daal dem que du voyage. pièce clé du voyage. Vous êtes prête de reprendre la liaison Vous êtes satisfaite, hein Khalifa, kii sama yaay la Merci beaucoup. Bon voyage. pouvoir. Euh... Exactement. Merci. Bon voyage. Mais vraiment. Avec la reprise, ça vous fait quoi Avec la reprise, le bateau a repris, j'ai repris le trajet. La route est pas bonne, elle est longue. Et l'avion c'est cher, donc je suis donc le bateau reflète. te bateau bi moom suñu bateau la Karaban laa dëkk. nanu voyagé nag laaloon nanu bu baax nag surtout ñun ñu dëkk Karaban. ci ñun pour euh, danoo enclavé daal. da ngay jël oto dem ba Elinkine jël oto dem ba Ziguinchor soog a jëlaat oto pour ñëw bu dee bato bi nag da ngay si bato bi rek euh, ñëw wàcc Dakar. Ah, kontaan rek <laughs> kontaan kontaan naa si bu baax ñaan yàlla rek mu sax mu bañ a taxawaat. <laughs> sikkim bi mooy maanaam da ngay ñëw nga présenter sa biir nga présenter sa carte donc ñun suñu rôle mooy d'abord dañuy xool billet bi ndax méngoo na ak voyage tey bi datu tey bi ensuite ñu xool sa document bi nga présenté mooy maanaam euh, passeport wala carte d'identité ndax mu ngi en cours de validité donc bu yooyu matee ñu xool nit parce que moom la indi carte d'identité loolu des fois ça nous arrive des gens qui amènent des coquilles de boue boo xoolee nit ki vérifier identification bi nga xam ne moom moo taxaw sa kanam nga soog ko enregistrer dans le système donc enregistrement bi c'est obligatoire pour tout le monde muy mag muy xale muy bébé tout le monde ñëpp la ñu am sax euh, mère yaay di voyage ak doomam bu dee xale day présenter une autorisation qu'on appelle une autorisation parentale donc loolu yëpp. ñun dañ koy vérifier fii ñaata ñoo nekk ci bato bi euh, yaay ndaw si voyagé bu ànd ak xale ndax papa ji xam na ndax mu ngi voyagé ak xale bi moo tax dañuy laaj euh, autorisation parentale. travail en étroite collaboration avec la police bu ñu paree dañ leen di yebal document yi ñoom ñu xool bu dee jaar na yoon ñu bàyyi ko mu jàll dem si scanner. yenn client yi nga xamante ni ñoom ci seen bopp am nañu ay bagages daañu dem enregistrer seen. tegee vingt kilos yi mu nekk excédent yi excédent boobu lay fay quoi effet vestimentaire quoi effet le kilo c'est à combien? Euh, cinquante francs pour les amis et les sushis. s'il s'agit d'autres bagages par exemple on voit des des ventilos des frigos. Ah, par exemple s'il s'agit des ventilos xam nga ça on va facturer comme électroménager. le tout c'est à 300 francs. S'il s'agit aussi du fer. électroménager, fer fers xam on les appelle les le kilo c'est à 200 francs. le kilo s'agit aussi des outils comme par exemple les pièces de rechange. le kilo c'est à 250 francs. passagers bu ñu ñëwee di embarqué dañ leen di woo interpeller ci seen état de santé pour xool s'ils sont diabétiques ou hypertendus ou asthmatiques pour xam foog nga am au moins seen identité sanitaire avant ñuy embarquer à bord du navire nga am seen identité sanitaire avant ñuy accéder à léegi dañ lay ni ah je suis diabétique je suis hypertendu tu notes nga xam pour bu ñu yéegee à bu amee problème tu peux agir en conséquence normalement processus bi nga xam ne dañoo war ñëw ñu ñëpp informé parfois nag dañuy nier parce que am na yenn problème de santé yoo xam boo amee du mën a ànd ak voyage ci daal mën na la indil ay jafe-jafe dañuy préféré débarquer la ñoom buñ. comme comme genre yan genre ngeen di waaw c'est-à-dire que les femmes enceintes c'est-à-dire que les femmes de plus de six mois ne sont pas admises à bord des navires moo leen yëpp parce que c'est pas sûr avec les mouvements elles peuvent accoucher la grossesse. les les diabétiques ils ont un déséquilibre de leur diabète c'est-à-dire un diabétique qui présente un taux de glycose qui est supérieur à 3. beneen bi nga xamante ni bu am solo la di wàllu wér gu yaram. ay garab réserve yàgg ngay jël bato bi daaw la sonal. miin nga ko daal. waaw kon nga. macha allah marin nga première fois ma ci yéeg. dama miin. ñu ma seen kii bi ñu jox ma garab ma ma dallu ma mën a nelaw. mais après yu fur et à ma yàq ci nag léegi loolu du ma miir du ma def dara maa ngi nekk macha allah fii tamit dañ lay assister nag tamit bu baax a baax dañ lay assister waaw bañ a laaxatu waa bañ a laaxatu tamit ñu ñëw ci salle d'attente bi file la ñuy amee seen kàddu bu mujj boo xam ne dañu leen koy sonc ndax taxawaay bi ñu war am ci batu gi. les produits toxiques vides ou non vides les bonbonnes de gaz vides ou non vides les tasers les armes à si c'est dans vos sacs il est temps de les déclarer à nga xam ne moom lañ ko fay cité ñu ngi ñaan ku mu nekk sa biir sac nga déclaré ko ndax boo ko déclaré wu da nga yoon te ku salfaañe yoon. yoon dina la tegaat ci yoon reprendre la navette Ziguinchor-Dakar et Dakar-Ziguinchor, c'est un soulagement pour les populations. Il était grand temps parce que c'était beaucoup de difficultés pour voyager. Jóge Ziguinchor ñëw Dakar, c'était un calvaire, la route n'est pas bonne. gaal gi di Aline Sitoé Diatta taxaw na yëpp na li nga xamante ne loolu moo war a dem ca Ziguinchor client yi naka noonee bagage yi ñu def tukki nemmeeku bu mujj laata départ gi boo xam ne njiitalu Kosama moom moo daal di ñëw ànd ci nag ak kilifaam di njiitalu port autonome bu dakaar ci boppam ñu ñëw dugg ci bato gi saytu ruqaruqaat yi kii nga xamante ne moom mooy njiitalu Kosama xam ne ne lii mbir la boo xamante ne liggéey bu mucc ayib moo nekk ci ginnaawam tey dafa nekk bés bu xaw spécial ci Kosama ndax dañu arrêté woon gaal gi li bi ñu ko arrêté juin mois de juin la ñu arrêté woon gaal yi arrêté avion bateau ak yëpp mais bateau yi nag ñun ñoo mujjee tàmbali. Euh, mois de février le président waxoon nañu reprendre waaye reprendre gaal dafa laaj ay ay ay ay ay jumtuwaay yu wax pare looloo waroon bi ñu defee suñu réunion yi port de dakaar ñu dem xool ndox mi xóotaayu ndox beeg yooyu fu mu toll ñu xoolaat. balise yi ñuy teg pour wan yoon bi fa mu nekk moom la ñu defoon ne le 31 port dina pare le 30 le 31 ñun ñu ñëw xool environnement bi ànd ak commandant bi moom la defoon voyage bi ñu defoon keroog ak ak ak jàmboñ bi ñu defee le 31 nag neewoon naa leen dañu reprendre waaye dañ koy teg ci Korité bi 8 wala bu mu nekk date bu spécial encore ndax nit ñi dañuy bëgg mën di yónnee seen bagage am na ñoo xam ne du ñu voyager waaye dinañ ci yónnee bagage donc loolu moo waraloon ñu jàpp date huit neuf selon tabaski bi kañ lay doon yàlla def na nag lu ñu waxoon def am na tey mooy tey di la neuf suba fas yéene nekk Korité euh, passagers yi yëpp ñëw nañu bagages yi ñëw nañu ah ñu yaakaar ni rek di ñaan yàlla ñu continuer lii euh, ba faaw. njiitalu por autonome bu Dakar di Mountaga Sy mu rafetlu liggéey bi nga xamante ne sama def nañu ko ngir bateau bi tàmbaliwaat naka noone xam na ne lile dafay daal di jëmmal port autonome bu Ndakaaru wala sax ci yaatal. activité portuaire bu Sénégal. directeur général COSAMA maa ngi koy félicité bu baax ak équipe am def nañu campagne de communication les préparatifs nécessaires pour que voyage bi tey war a mën a am lu toll nii euh, ñetti téeméer yi doomi aadama ñu ngi ci biir gaal gi conditions yi mat na ci wàllu nag géej Boubacar Joseph Ndiaye mi ngi nii di fa di finir journée am tey mi ngi doon daw ci eh, ci ci xàll wi di dem Gorée Aline Sitoé Diatta mi ngi dem Casamance. yoonu économie ak yoonu transport de passagers ci wàllu géej tey lañ ko motal loolu moo tax euh, ci fii ci port autonome Dakar liggéey bi ñu def dañ ci kontaan bu baax a baax depuis 18 mois ñu ngi ci liggéey loolu mooy économie port autonome Dakar. maa ngi félicité nag directeur général Kosama ak ay équipe am maa ngi félicité aussi directeur général ANAM ñoo ñu jàppale ci liggéey bi ñetti ñoo ñooy suñu ay nattangoo ñoo ŋànk économie maritime Sénégal ci loolu kuñ ci ñëw jàppale ñu jox réew mi ak. kilifa yu réew mi jox leen li ñu soxla ci wàllu économie port mooy xoolu koom-koomu Sénégal ay loxo yu set yu mën a gérer am xam-xam ak xarañteef lañ fi fekk ñi nekkoon ay expert port ñoo nekk ñoo yor liggéey bi. clients yi dugg nañu ci bateau gi bagage yi tamit embarqué nañu ko ñu jox njiitalu gal gi di commandant bi feu vert wàcc ñëw tëj bunt bi ci gëtu kilifa yi. départ fi ci Ndakaaru wutali la sécurité est notre priorité à bord. Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des informations et aux procédures affichées dans les cabines et dans différents endroits du navire. Pour le respect des règles de sécurité, d'hygiène et de confort, nous vous prions de ne pas fumer, de ne pas manger dans les cabines et les consignes. Si vous avez envie de manger ou de fumer, merci de bien vouloir vous rendre sur les ponts extérieurs du navire. Si vous avez besoin d'informations de nous vous prions au bureau d'information. En cas d'urgence, suivez à la lettre les instructions des membres de l'équipage qui sont spécialement entraînés pour gérer ce genre de situation. Vous pouvez toujours tenir la rambarde lorsque vous montez ou descendez les escaliers de la navette Là, c'est le crew, c'est le membre d'équipage qui est à bord. Il y a 200, il y a 41 membres d'équipage à bord. Il y a un pilote, Pedro Rivière qui est là. Le y a y a un policier à bord, il y a un gendarme. C'est les escortes quoi. Et quatre commandos marins aussi. Voilà. Qui nous, qui nous escortent pendant le voyage. Le bateau Au total, transporte y a 233 passagers. 237 même, 237 passagers. Oui, 237. 237 les, les, 40, les 41. Plus les 3 là, ça fait 44. Donc 44 plus, plus 237. D'accord. Vous comprenez Ça fait 260. Ça fait 281. 281. 3 enfants, 7 bébés. Ça, c'est les bébés. Ils sont ressemblés à 7 bébés. 3 enfants et 234 avec tout Parfbait. Et le nombre les de bagages, oui, hein, le, le, le, la, la quantité de bagages exactement. Sénégal fekk 56 points 500 points 11 tonnes on a fait véhicule on a embarqué ces véhicules. ce véhicule. 3 13 motos et un camion. donc ça c'est le radar donc ça ça ça ça permet de détecter ce qui est objet métallique en mer c'est-à-dire les navires donc ce que vous voyez là en jaune ça c'est la terre. maintenant quand quand quand on navigue quand on va sortir vous allez voir parfois du point jaune. qui vont se mutualiser. Donc par exemple ça, ça peut représenter un navire. Maintenant ça fonctionne avec, avec, avec une antenne qui est au-dessus. Donc cette antenne-là, le système de fonctionnement, c'est que l'antenne envoie des ondes électromagnétiques. Donc si ces ondes électromagnétiques-là tapent sur du métal, ça se reflète. Donc antenne bi émetteur, récepteur. Donc lui, quand il reçoit euh, l'onde, ça va se matérialiser ici en point jaune. tu vas voir, ça va te donner les informations. Comme quoi, ça te donne sa position. Donc nous, en conséquence, on va voir si ce point jaune-là, ou bien ce navire-là, sur nos routes, on va manœuvrer selon les règles de base de si on est prioritaire. Parfait. Voilà. Parfait. Donc, Et ça, ça, ça, ça, ça, ça tout à l'heure. Maintenant, nous, actuellement, on est en mode Donc, on va allumer notre feu bord et notre feu bâbord, le feu de traitement et l'arrière. Maintenant, un avis qui va le voir sera qu'à est en train de faire. Je pense que voilà. Maintenant, si j'ai des problèmes, j'ai des trucs, j'allume les feux rouges, tu vois, pour montrer que j'ai un problème. Avec ah, ça, c'est une caméra qui est réglementaire pour les navires, type roulier, ou un navire qui transporte des passagers et des voitures. Donc, parce que ici, c'est une zone qui est sensible, c'est le garage. Maintenant, on doit surveiller cette zone-là en permanence. Parce que quand la porte n'est pas fermée, ça peut être synonyme de danger. C'est-à-dire le navire peut couler. Parce que nous, nous sommes en mer et que la rame soit ouverte. Parce que dès qu'on prend la mer, il y a de l'eau qui va rentrer. Et l'eau qui rentre, ça veut dire que c'est un navire qui coule. Maintenant, pour le contrôle aussi, c'est un système de verrouillage. Ça se verrouille depuis la passerelle. Mm-hmm. L'officier, il ferme la rame. Actuellement, fois le point vert est allumé. C'est-à-dire que la rampe est fermée, mais n'est pas verrouillée. Donc nous, à partir de la passerelle, on le verrouille ici. On le verrouille et on marque à a, on a, on a fermé la rampe, à quelle heure la rampe est verrouillée. Ça, c'est des consignes de sécurité. Si vous voyez là, ça, ce sont des le, le, le niveau d'huile, de gasoil, ah de consommation, voilà, au machine. Puis moi, oui, comment on appelle yooyu comme moom mooy permettre euh, à gauche ou à droite. je vois am ay 10 degrés 20 degrés. voilà parce que fii on habite un euh, degré. xam nga quand quand quand tu prends la la la terre on dit que la terre est mais c'est c'est un drop de 360 degrés. maintenant nous c'est comme ça qu'on navigue. 39 degrés 180 degrés 270 degrés 360 degrés nord donc c'est nord est sud ouest. éco-sondeur comme ça ça donne la profondeur. actuellement on a 7 mètres 8 mètres de profondeur la tii quoi c'est-à-dire la tii c'est le fond du navire donc ça te donne la profondeur du fond du navire jusqu'au fond jusqu'au fond de la mer About that time, about donc tout le voyage, et vous veillez sur bon, ça aussi. on est au niveau du Sénat. Parce que la, la mer, c'est un eau profond. Mais on est obligé de, de l'enlever. Voilà quoi, parce que comme là-bas, c'est des gros fonds, oui. les profondeurs ne sont no jest dobre. nattu bi Aline Sitoé Diatta boobu ba léegi ñu ngi koy wax waaye dafay am solo ñu xool bateau bi ni mu toggee maanaam structuration gaal gi nga xam ne moom mooy def diggante Ndakaaru ak Sikicoor

Pour le bon 4, vous avez à partir de là, vous avez des cabines à 4 et à 2. Ensuite, vous avez le restaurant derrière. Vous, avez, la cabine VIP dont je vous demandez tout à l'heure pour voir pour Là. Donc, on va faire la visite des cabines. Justement, euh, là, c'est la réception. Donc, le studio, c'est Donc, l'entrée, c'est par ici. Ils passent par là, donc, ils font les check-in pour être installés après. Mais là, on est, ça, c'est le Donc pour moi, ça, c'est des fauteuils de 126 la Là, c'est les passagers. Donc euh, on commence par là. Ensuite, les cabines à La cabine à

l'avant. Donc maintenant, on va voir les Pullman B, A et B. Hein. On a déjà fait le Pullman C et les cabines 8. On va faire le Pullman avant. Après, on pourra cabine 3 avant, cabine euh, pont 3 avant. Vous avez pont 3 arrière, on aura pont 3 avant. Donc, avant tout, on va voir les Pullman. Justement, là, vous avez des, le Pullman A, tribord. sont des Pullman de 66 places. Le bec De 66 aussi. le total de Pullman. Ça, c'est le pont 2 Par rapport au pont 3, c'est le pont 2. Donc le pont 2, nous que des fauteuils, des fauteuils de, euh, de Le Pullman A et le Pullman B. Donc le total, nous en fait, ça fait justement. B. Ça, c'est le pictogramme, en fait. C'est en même temps des lieux de rassemblement. En cas d'incident à bord, c'est des de rassemblement. Ici. Oh, c'est pourquoi vous voyez des pictogrammes comme ça. Vous avez pictogramme à l'avant. Et eh bien, pour le Pullman aussi, c'est vous l'avez aussi. Voilà, eh voilà. Mais maintenant, on va remonter et faire le Mais là, vous avez le contrat avant, vous avez des candidats deux. Là, vous avez la la police, c'est le cabinet ici. Là, vous avez des cabinets à deux, hein. Ils sont là. l'infirmerie. Pour ceux qui sont malades ou qui ont le mal en mer, ils eh viennent là, prennent des médicaments, c'est gratuit. Donc le médecin, il est là tout temps, à leur disposition. Voilà. Là, vous avez l'hôpital. Prenez là-bas, l'hôpital. Mhm. Donc pour les passagers qui sont malades. Parce que, ouais, justement, qui doivent être hospitalisés en fait. Voilà. Ça, c'est l'hôpital. Ensuite, vous avez la chambre du médecin. Il est juste à côté de l'hôpital et de l'infirmerie, en fait. Hmm? Au cas où on aura besoin de lui. Hmm. Donc, il est toujours là, disponible. On peut le réveiller à tout moment, en fait. Hmm? Maintenant, on va faire le tour. placard là, c'est pourquoi Là, c'est des, AIP. Ah, AIP, équipement de, de protection incendie. Donc, de, de, de, de, de lutte contre l'incendie. Donc, des, de l'équipement, de lutte, on les des, des qui sont là pour la lutte. Parfait. Contre l'incendie, quoi. Donc, c'est ça qu'on a ici. Voilà. Là, c'est le compartiment, c'est le cabine des officiers, compte toujours. Hein? Voilà, justement. Et tu c'est ici. C'est notre cap. Ok. Voilà.

pourront aussi s'offrir des sandwichs à 1200 au niveau du bar. Au niveau du restaurant, donc nous avons une carte, hein, une carte avec euh, plusieurs choix, comme dans les restaurants classiques, hein, Kosama, euh, surtout le bateau à Sitoé et Yata. Euh, c'est voyager en toute sérénité. Euh, les gens en profitent vraiment pour voir le paysage tout autour et tout cela. Et nous avons aussi pensé à mettre toutes les commodités qu'il faut à bord que les gens puissent euh, être à l'aise, euh, puissent, euh, les gens puissent manger, euh, dormir, euh, se promener, euh, contempler les paysages et voyager en toute sérénité. Quoi. Vous avez le bar qui est derrière. Le bar est là. accident et autres et qu'on demande on saura comment faire. L'équipage est pour ça. Là, on parlait d'embarcation tout à l'heure. Mais l'embarcation, quand on embarque par embarcation, ce sera en phase rouge. Et ensuite, il aura des passagers, le va remonter au par les radeaux en fait. Ça, c'est des radeaux, Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez, là vous avez 8 radeaux, comme à droite aussi vous avez 8 radeaux. Donc il y en a à droite comme à gauche. Attention. c'est le plafond de libération, c'est comme le radeau. Ça, c'est pour récupérer des passagers qui sont en mer ou le même travail que le radeau. Le radeau, il est pour récupérer. Donc, on parle de, de de récupération. Navire roulier à passagers, le bateau Aline Sitoé Diatta, exploité par le COSAMAN, Consortium d'activités maritimes du Sénégal, est âgé aujourd'hui de 17 ans. En effet, sa construction le chantier naval de Fasmer à Bremen en Allemagne a débuté en juillet 2006 et s'est achevée le 25 octobre 2007, long de 76 mètres sur une largeur de 11 mètres 20 d'un tirant d'eau de 3,4 2, le navire peut transporter jusqu'à 504 personnes en plus des 39 personnes de l'équipage. Ce bateau, Aline Sitoé Diatta, est propulsé par deux moteurs Wart Silla de 1800 kW chacun. Mais pourquoi le nom Aline Sitoé Diatta Déjà, le bateau, la photo de cette femme fait le Natif de Cabrousse, dans la Casamance, dans le sud du pays, en 1920, elle fut héroïne de la résistance contre la colonisation française dans son fief. Orpheline de père, dès son basage âge, elle fut élevée par son oncle paternel, Ella Balin Diatta, de Dakar, où elle fut bonne. Elle entendit des voix qui l'indiquent sa mission, celle de libérer son peuple de l'administration coloniale française. Aline où la dame du Cabus menace au combat face aux colons et entraînant la population à la désobéissance civile. Alors qu'elle était jeune, dévouée, mais engagée, elle fut par la suite bousculée, arrêtée et puis jugée, puis donc déportée à Tombouctou au Mali. Et c'est là qu'elle perda la vie à seulement 24 ans en 1944. Figure emblématique de la résistance casamassaise, ancienne docker, donc liée à l'activité maritime, En guise d'hommage, le grand bateau qui assure la navette Dakar-Ziguinchor a été baptisé en son nom en Un hommage rendu à une dame remarquable et remarquée, une âme éternelle, navigue l'océan Atlantique. tëf nañu ko ci batu gi maanaam ci géej gi ñëpp yeewu mel ni ñu joxante ci étage mën a ji nag yëg gis-gis ak sentiment biñ ci am kenn mënu ko expliquer ci suba teel nañu ci base Casamance bi escorte militaire bi le bateau accueilli et escorté tel convoi favorable ah bon quitté jàmm waaw egg si nañ jàmm alhamdulilah. neex na torop torop sax bi gis nga li ma la waxoon nee naa la ñëw naajement nga nekk tranquille nga ñëbbi si mu mel ni sa kër nga génn. ajjuma ñetti waxtu ji bëccëg maanaam 15 heures la bato gi jógee ca Ndakaaru. tey jii embarqué na 283 donc moo ëpp euh, arrivé bu bu Dakar bu barki démb bi ñi ñëwoon Korité moitié bi dañuy dellu dakaar pour pour dem jël dellu ci seen liggéey ak yooyu et nit ñi ñi ngi commencé xam ni bato bi ñëwaat na donc ñi ngi ñëw ndànk-ndànk di jënd billet yi voilà mais am na impact bu rëy daal ci économie euh, région bi ñu xool bato bi bokk na si luy développé économie Casamance durant lu mu taxaw yëpp leer la sax euh, économie bi ndërmalu na nit ñi kenn amatul woon looy def soo bëggee voyage da ngay sonn vraiment lii moom ouf de soulagement la pour population Ziguinchor métti ci ñun métti ci chauffeur ak baana baana trans yóbbu ba taa kii kii Dakar ñun fii jaakati baana baana ak chauffeur yëpp dafa métti ci ñun torop presque dix mois. Voici la dernière étape du voyage. Et les passagers, certains d'ailleurs, sont en train de revenir pour récupérer leurs bagages avec les dénominations qui sont notées, comme vous le voyez, afin de quitter les lieux. yàgg na tàmbaliwaat na li nga xamante ne moom mooy rotation am jógee fii ci Ndakaaru dem te Sigicoor waaye tamit jógee ci Sigicoor ñëw fii ci Ndakaaru mooy jot waxtu bi la ñu yegg si wàcc ci gare maritime bi mu nekk rek voyage boo xamante ne àndoon naag confort voyage boo xamante ne sécurité bi lu mucc ay la voyage boo xamante ne lépp lu jëm ci wàllu sûreté mën nañu dalal seen xel kon li ñuy wax mooy képp ñëpp ñu mën a daal di jóg ngir wutali Ziguinchor jaarale ko ci bato bi ndax voyage bu am solo su ànd ak kaaraange te wóor ak batois yi su koy jàngal